koy dénkaane doo ko dénk sa xarit da nga koy denk xaritam te président bu bees bi ak acteurs yi mu àndal ñu war ko accompagner jàpp naa ni incha allah réforme yi nga xam ni moom la ministre bi soxla ci làmb président soxla ko ba defal nu lu toll ni arène national yàlla suñu borom war ñoo dimbale ba lu toll ni arène national bu ñu ko président Macky Sall tabaxalee teñ soxla ko depuis 1960 docteur Alioune Sarr nekk fi vingt cent 2607 mois ba delloo tey lenge équipe bi président fal xam naa leen équipe la bu am solo bu yaakaar boo xam ne incha allah liñ bëgg ci làmb danañ ko def bandeek dogal yàlla. fi mu fekk làmb ak fi ñu ko joxee ak Alioune Sarr jéego yi mu def ci làmb est-ce que def lu supéré Alioune Sarr yomb. loolu yombul remplacer docteur Alioune Sarr yombul def li mu def ci làmb yombul parce que wax naa la ne bi muy ñëw ci làmb booba jamono li am kër ci mbër matul fukki nit. Alioune Sarr mu ngi fekkoon làmb kase mbër trente mille francs ak trois cent mille francs docteur Alioune Sarr moo ko yóbbu ba lamb yegg tey ci mbër di am 150 millions ak 140 millions waaw donc remplacer ko moom yombul waaye nag kii ko remplacer jàmbaar la am na fit am na xam-xam te ñi mu àndal ay nit lañ yoo xam ne rafet nañ jot ñu incha allah liñ bëgg danañ ko am bu neexee. merci beaucoup ñëw kenn ku ci nekk dikk bëgg a postulé wu tax nga am loo ko wax nangam moytul diw moytul diw kuy wutu nit nag doo bàyyi ay nit li ma koy cons. waaw ki nu fal it groupe la nu fal groupe ñooy liggéeyandoo bu jëkk Alioune Sarr moo jëloon ay xaritam comme ni ko ministre waxee tey groupe la ñu fal groupe gi na leen ñëpp yéene jàmm ku ci bokkul sax mel defal sa bopp mel ni ci nga bokk parce que làmb làmb ñëpp la ñu bàyyi ŋàññante beeg di wut lu lëndëmale nit rek lu taqal nit rek yooyu yooyu c'est pas le Sénégal yooyu génn ci xolu Sénégalais yi parce que yàlla noppi na comme yàlla noppi na nag jarul ñax toog xasteeg yooyu yëpp jaru ko fi da ngay gën a tàngal sa rek. réaction loolu am mbégte lool gis ñoo xam ne ñoo nekkoon ci salle bi ndax ñooñu nitu làmb lañu donc minis bi bu mu dévoilé nouveau comité bi bu war a doxal le comité donc ñun mbégte lañ ci parce que dañu foog ne ñu mu jël xam nañu làmb yaakaar naa ne nekk benn pour liggéeyal askan bi. fekkee ministre bi sas na leen ay résultats lay xaar ci yéen est sas boobu. yaakaar naa ne duñ ko attan parce que ministre bi su ma nommé président ma yor wàlla lutte traditionnelle fa njëkkee làmb avant ma nekk le roi des arènes dëkk bu nekk dem naa bëri Diouf dem naa ba bëri Niger dem naa ba bëri Côte d'Ivoire ci équipe nationale kon nag suñ ma ko dénkee war na mun a dox war naa dugg ci gox goxaan ñoom développer lamb Bira la nommé président du CNG est-ce que euh, ban euh, euh, est-ce que xam nga nit ki d'abord est-ce que ban rapport la ak làmb non am na rapport ak làmb parce que moo nekkoon le président du CNG de Kaolack donc organisé na drapeau du chef de l'État foofu ak le CNG organisé ay yeneen làmb foofu kon am na làmb bu baax te ku tey la ku yaru la yaakaar naa ne mun na doxal la rawatina nag son vice-président boo xam ne comme par exemple tout récemment bu ñu def le drapeau du président de la République excellence Macky Sall Thiès lañ ko defee yóbbu ko Mbour donc presque organisation bi yëpp moo ko yoroon parce que moo nekkoon directeur régional Aliou Sarr su quitté tey mbégte la pourquoi a wax mbégte la parce que soo demee ba nit ci di wax ne da nga yàgg foofu rek loolu mooy défaut bi sant yàlla la ji ñu ko leneen waxuñ ko leneen loolu mbégte la su demee nag ba ministre bi woote tey di ko jox ay rakam pour ay rakam doxal yaakaar naa ne génn na la tête haute je vous remercie jërë ngeen jëf la presse